أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم ومن سوء نفسي ومن إضلال الهوى ومن سوء إخواء الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من اتبع هداه واهتدى بهديه إلى يوم الدين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا سدد لساني نور جناني صف أماني وزد برائي mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaare bëgg a ñëwaat ak yéen rek comme ni ñu ko baaxoo defee ci ay bind yi weesu ñu nekkoon ak yéen ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi tudd Nahju Qadaa'il Haaj te sëriñ bi di ci jàngale li nga xam ne mooy ay teggiin waaye di ci jàngale njàngaleen wu am solo woo xam ne nit ki moom la war a dunde ci digganteem ak mbindeef yi ci worm ma ju mu leen war a séddee waaye teggiin yu mu leen war a séddee waaye jëflante goo xam ne war na ko di ko sàmmoonte suy jëflante ak ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi loolu nag mu làmb képp koo xam ne daf laa féete ak mag wala koo xam ne daf laa féete ak ndaw wala koo xam ne sam kem la maanaam da ngeen a maase kon téere bi li ci sëriñ bi di leeral lépp ci ay teggiin la jëm nit ki naka la war a jëflante ak nit ñi te yaakaar naa nit ki saa bu amee ay teggiin dana mën a jëflante ak képp koo xam ne mooy mbindeef ci kaw suuf keroog suñu bind bi weesu ñi ngi taxawoon ci ci sëriñ bi doon wax ne wa an yajuuda ak mu tabe liya ñeel ma bittibaaxi xayril wara ci topp ngën gi mbindeef almusafaan kadi kañu nungu am ram moom almutaay kadi kañ topp sëriñ bi ne na suñu borom bi subhanahu wa taala yal na tabe ñeel ma yaa maanaam yal na ma may ci topp ki nga xam ne mooy ngën gi mbindeef di yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom ma nga xam ne moom lañ nungu am ram moom ëllëg yowmal xiyaam waaye moom ma nga xam ne moom kese lañ war a topp te diine ji nga xam ne moom moom la indi moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy diine ji nga xam ne moo moo wér ndax suñu boroom moo wax ci alquran ne wa man yabtaxi xayra al islaama diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin kon loolu day tegtale ne képp ku topp leneen lu dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu fi andi bu boobaa na nga xam ne ci ay neen rek nga nekk sëriñ bi di continué ba tey mu ne baada salaatihi ginnaaw ak julleem alayhi ci moom bisalaami ak jàmm wa alihi ak ñoñom wa sahbihi ak saxaabaam bilam fisaam ci lu amut ak dog maanaam ci lu dog kon sëriñ bi ginnaaw bi nga xamee ne wax na ne suñ boroom yàlla na ko may mu topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy ngën gi mbindeef dafa ñaan suñu boroom mu def jàmm waaye def xiiwal ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam defal ko ñi nga xam ne ñooy waa këram waaye defal ko ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi ci loo xam ne nag day continuer te du dog mukk sëriñ bi ne huna fii intahat la jeexe tarjamatul kitaabi tarjamay téere bi fal aana léegi nag am sarifu dañuy wuññiku waanaam dañuy soppiku lil aada bi jëm ci ay teggin sëriñ bi ne na fii kat fi la tarjamaab téere bi jeexe kon li nga xam ne moo ñu tax a jug dëgg dëgg dëgg te mooy waxtaane ay teggiin kon dañuy soppiku jëm ca loola maanaam dañuy wëlbatiku jëm ci li nga xam ne moo tax téere bi jug dëgg dëgg te mooy ay teggiin moo tax mu ne fii la tarjamaay téere bi jeexe léegi nag kon ni ñuy def mooy wëlbatiku jublu dëgg-dëgg ci li nga xam ne moo ñu tax a jug te mooy ay teggi yi nga xam ne moom la ñu bëgg a gaaral ci téere bi waaye teggi yi nga xam ne moom la ñu bëgg a leeral ci téere bi mu ne axulu danaa wax moom sëriñ bi radiyallahu anhu mooy wax mu ne axulu danaa wax tey unazima ngir ma woy wala ngir ma yaxal maa la nga xam ne xat nasara wesaroon na ko ash-shaykhu sëriñ ba ahmadu te mooy ahmad allazi ma xam ne tabaxara géej woon ne na dinaa wax man sëriñ bi ngir yaxal la nga xam ne ash-shaykh ahmad mi nga xam ne moom moo yaxaloon téere bi te wesaroon ko danaa wax ngir way loolu nga xam ne moom la wesaroon waaye danaa wax ngir way la nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou moom mais nga xam ne moo géeju woon ci fànn xam-xam yu bëree bëree bëree bëri dinaa wax ngir yaxal la nga xam ne moom la wesaroon mu ne yaa maasara tullaab yi yéen mboolem way càkkuteef yi ñeen ñi nga xam ne yéenay sàkku ak njub yéen ñi nga xam ne yéenay sàkku ay teggiin isma'u déglu leen min niya ci man yéen ñi nga xam ne yéenay sàkku ak njub déglu leen mu bàyyi ko ci man nasihatan dénkaane loo xam ne tadd faw dana fekk an kum walif leen saqaa an ak texee bi yéen ñi nga xam ne yéenay sàkku ak njub yéen ñi nga xam ne yéenay sàkku ak teggi ay teggiin sëriñ bi nee na radiyallahu anhu nee na ngeen déglu ko bu baax mu jox leen dénkaan yoo xam ne dana leen fegal li nga xam ne mooy ak texee di waaye dana leen fegal li nga xam ne mooy alkande waaye dana leen ñot di jëmaleen ci ak njub waaye dana leen fegal lépp loo xam ne moo leen di gàllankoor sëriñ bi ne loolee nag nasihatan ak laa biire la goo xam ne lakum dana leen ñeel yéen ñi nga xam ne yéen a koy sàkku li wajhillaahi ngir jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala tanbiha muy aj yee kulla gaafilin képp koo xam ne dangaa sàggan wasaahi ak koo xam ne boroomu jamaj la maanaam boroomu njuumte la ne na dénkaane yi nga xam ne moom laa leen di dénk de dama koy def rek di leen ko dénk te yàlla rek tax waaye dama koy def di leen ko dénk ngir yee ci képp koo xam ne aji sàggan la wala képp koo xam ne aji juum la wala képp koo xam ne aji aji jomaj la kon ndénkaan yi dama koy def rek te yàlla rek tax waaye defuma ko ngir puukarewu defuma ko ngir bari xam-xam defuma ko ngir dara mu ne tariqatul adabi yoonu teggiin rahmatu saxiiri mooy yërëm ndaw kal ab bi niki baay wal ummi ak ndey wa tawqiirul kabiiri ak weg mat sëriñ bi nee na yoonu teggiin mooy yërëm ndaw nit ki su fekkee ne ki nga xam ne moo ko féete ak ndaw yërëm na ko am ci moom yërmande ji nga xam ne moom la ñaari way juróom amee ci moom bu boobaa jëfe na ay teggin digganteem ak ki nga xam ne moo ko féete ak ndaw ki nga xam ne moo ko féete ak mag na ngay jëfee di ko ay teggin sa digganteeg moom mooy nga wekk ko waaye nga jox ko cër bi nga xam ne moom la yayoo te mooy nga teg ko fa nga xam ne fa nga teg say kilifa waaye di jëfandikoo ak moom ak wegeel ba doo ko sàllawli ku benn yoon wa jaalu mislika ak def sam kem kanafsika niki sa bopp sa waa ci ak yemoo li wajhi xaaliqin ngir suñu jëmmi suñu boroom mi nga xam ne moo bind istawa yemoo na alal arsi ca kaw aras ne na itam soo jugee foofu képp koo xam ne moom nga tollool am nopp képp koo xam ne sag maas la nga def ko ni sa bopp loo bëggut ku la ko def bul ko ko def loo xam ne buñ la ko defee métti la bul ko ko def waaye lépp loo xam ne nunguwoo ku la ko def bul taxaw mukk di ko def koo xam ne dañee ne yemoo am kem waaye sag maas la kon jàpp naa ye àdduna moom li muy rëy rëy rëy ñett yooyu rek moo fi nekk koo xam ne daf laa mag ak koo xam ne daf laa féeti ndaw ak koo xam ne da ngeen a tolloo am nopp maanaam da ngeen a maasi te ñett ñooñu ku ci ne sëriñ bi wax na ni nga xam ne noonu nga war a jëfandikoo ak moom ci ay teggiin moo tax mu ne dañoo war a wekk mag waaye yërëm gone waaye ki nga xam ne moom nga tollool am nopp nga respecté ko bu baax a baax waaye def ko ni sa bopp lépp loo xam ne bëggoo ku la ko def bul ko ko def mukk mu ne yaam yi li mu jublu ci wax jooju nga xam ne moom la doon wax da koy saraa di ko firi an na tarixatal adabi naka yoonu tegginde an tarxama mooy nga yërëm asaxiira ndaw wa takuna te ngay nekk lahoo ñeel ko kal ab bi ni ki bàyyi assafiixi gadi aji ñeewante wal ummi ak nday arrahimati ga nga xam ne mooy aji yërëm watu waqira ak nga fekk alkabira mag wa in kaana doonte nekk na abdan di am jaam xabashiyan di ko jug abashi sëriñ bi nee na loolu mooy yoonu teggiin mooy nga yërëm xale waaye mel ni yërmande ji nga xam ne moom la ko bàyyam ëmbal ci ak ñeewante ak yërmande ji nga xam ne moom la ko way juróom bu jigéen um ëmbal ci ak yë yërmande loolu lépp nga jëfandikoo ko sa diggante ak li nga xam ne mooy koo la ku la féete ak ndaw waaye képp koo xam ne moo la féete ak mag donte ne dafa xeebu lool ci ak colom wala donte ne dafa xeebu lool lool lool ci yeneen fànn bum tee na nga xam ne noonu nga ko war a wege noonu nga koy wege waaye bul ko xeeb mukk bul ko doyodal mukk waaye na nga ko jox cër ba nga xam ne moom nga ko war a jox wa anta jaxala te nga def mislaka sam kem ka nafsika niki sa bopp sa waa an ci ak yemoo li wajhillaahi ngir jëmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala alkarimi ba di aji tedd kon sëriñ bi radiallahu anhu nee na na nga def ki nga xam ne sam kem la nang ko def ni sa bopp lépp loo xam ne bëggoo ku la ko def bul ko ko def waaye lépp loo xam ne suñ la ko defee du la neex bul ko ko bul ko ko def waaye na nga ko def ni sa bopp lépp loo bëggut ku la ko def bul ko ko def lépp loo bëgg nit ñi di ko jëflante ak yow dee ko jëflante ak ñi nga xam ne ñoo di sam kem kon yaakaar naa nit ki su fekkee ne ci loolu la tënku li nga xam ne moo di ak dundam ci digganteem ak ñi nga xam ne ñooy jaam ñi dana yomb lool waaye dana xam ni muy jëflante ak ndaw waaye dana xam ne ni muy jëflante ak mag waaye dana xam ni muy jëflante ak koo xam ne dafa maase ak moom kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax di tuub bu baax te jéggulu rek di wàcc foofu suñu kàddu di wax ne in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh